الخليفة خادم الأمة يك يك بيم أم بجوري في دم بسودان يقامنا سود أكدين خمسة سودان دي مسورة نيوكو أي بروبلم من من كن دم تجيتو مدام يالا دفع كوتشيتو دم دفع كوتشيتو فيك كون حديث بي ما وحني لي ممدي دي تجولي دي دبوك ci muminin la bok ci saalihin la bok waye su loolu du du du du ñomé parce que suñ la waxé suñ laaj tay kan moy bayam ngi ne cheikh islam moy bayam te mi ngi doon wéy ben wéy cheikh ibrahim radiyallahu taala anhu di wax ne arumu rida albaari li nusrati diinihi wa ubrizu lil jiili ljadidi mithaala ya bayt bi li wax ci gàttal mooy moom ngërëmal boroomam rek la soxla ngërëmal boroomam rek la soxla ak tasaare diine bi te lim def ni ci tànk baayam yi la la la la topp kon ñi ngi koy ndokkel bu baaxa baax di ndokkel Médina di ndokkel Sénégal di ndokkel Afrique di ndokkel àddina bi yëpp ndax loo xamantene Nations Unies mënuñ ci dara américain yi mënuñ ci dara ku nekk ñëw na def ba sonn mun munu munul munu ko liggéey yàlla defal ko taw dem yépp sotti kon lii moom wax ni génn ci biti la allahu euh, Sénégal su waraw ko ñi ngi sant yàlla bu jullit yëpp di ndokkeel taalibe yëpp di ndokkeel ñaan gudd ak wérgu yaram di ko may ay ndam rek ci lislaam wa ma dalika allah bi aziz wasalaam ñu ndokkee la sa turu Cheikh Mouhamadul